dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi ko quotidien mu ñu xamal naan ñu dialogue national bi ginnaaw seen réunion bu njëkk ba nga xam ne ci ak pëccëxoo la jeexe maanaam si ak ñàkk déggoo tey ji si alxame ji danañu dooraat beneen réunion waaye nag bala nga nay naam ne fa ñi nga xam ne ñoom lañ dénk dialogue national bi ñoom seen bopp ñoo mënu ko te déggoo yéenekaay source a mu ñu xamal naan ñu dialogue national bi jamono ji nag bu ñu waxante dëgg dafa daal di tàgg témbe lépp dafa daal di lëndëm yéenekaay gi de la ñu fekk fa maître Abdoulaye Wade la xam xamle ci yéen a kaay gi nee na nag ñi nga xamante ni daal ñoo nekk ci ku jëkki ay leader politique ñu bari si ñoom dañu koo daal di trahir maanaam dañu koo daal di wor Abdoulaye wadd mi fi nekkoon njiitu réewum Sénégal xëy di wax naqar wi nga xam ne daal di na kay am ci Front National de Résistance yéen a kaay gi mu ñu xamal ñu collectif ñoo lànk ñoo bañ jamono ji nag daal di nay tas tasar la ko waral nag journal bii di Grand Place nee na Macky Sall ci boppam mu bëgg a yàq collectif ñoo lànk libération na ko Macky Sall kay soo waxee ne mu bëgg a collectif ñoo lànk yaa ngi koy tooñ waaye nag Abdoulaye Wade ci boppam moo ko yàq journal bi mu ñu xamalal ñu jamono ji collectif ñoo lànk su amee ay jafe-jafe dinaa leen wax ana nan la ca Abdoulaye Wade andee yooyu la jafe-jafe ndax nag boobale kuréel gero bi nga xamante ni ñoo ngi amal seen manifestation bi dañoo dem seeti Abdoulaye Wade ndekete yoo Abdoulaye Wade yëkkati ab xaalis daal leen di jox lu toll ci sept cent mille francs daal di koy def cotisation Ousmane lu toll ci cent mille francs cotisation ngir nag marche bi nga xam ne amal nañ ko bi ñu génn loole nag ñoom bi ñuy def seen évaluation ba ñenn si ñoom nag dañoo mer ba futu ne ana lan mooy ndey ñuy dem ca Abdoulaye Wade maanaam mu leen di yëkkate ab xaalis di leen koy jox loolee sax moo tax génération force citoyenne daal di génn ci collectif ñoo lànk yéen a kaay gi mu ñu xamal naan ñu jamono ji nag ci biir collectif gi maanaam ak ñàkk déggoo daal dina say am ndax ñi nga xam ne ñooy waa yaana maar ak frappe France Dégage ñoom nag nee nañu daal tooguñu benn yoon ak ki nga xam ne maanaam moom mooy Macky Sall ne ñoo ngi koy lànk ak njiitu réew mi di président Macky Sall loole nag daal nay andi safaanoo ci biir googu day kuréel la yéen a kaay gii di Vox Populi ak laas mu ñu xamalaan ñu collectif ñoo lànk tey ji dinañu amal conférence de presse ba tey ci biir journal bi di waa Grand Place mu ñu xamalaan ñu en tout cas ñi nga xam ne ñooy entreprise privée yi bu ñu nekkee si ay jafe-jafe na leen leer ne Abdoulaye Daouda Diallo mi ñu dénk koomu réew mi moo ko waral ndax nag lu toll ci trois cent cinquante milliards yoo xam ne war na koo fay ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur privé bi ba léegi ni France dali xëdd na yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu xam yóbbu ñu diwaanu Bambey mu ñu xamal lan ñu ni ki dem nag université Alioune Diop daat nay tàng jër étudiants yi doon defante ak ñu xam ne ñooy takk der yi yéen a kaay gi de la mu ñu xamal lan ñu am na si juróom ñaari policiers yoo xam ne am nañu ay gaañu gaañu yu méttee méttee Vox Populi mu ñu xam lan ñu juróom-ñeenti étudiants yoo xam ne ñoom tim daan ñu si am ay gaañu gaañu réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu grève boobee nag ak defante ba la ko waral mooy étudiants yi seenu nekkin la ñu bëgg ñu daal di koy soppi Quotidien daal di xëy ci bi nga xamante ni moo am ci njëgug jalis ay Diouf sar ak Amidou Diallo mi jiite kuréel gi ëmb ñu amee jàngoroy roño amul benn yoon boo xamante ni ñoo ngi koy déggoo ci seeni kàddu yéene kaay gi mu ñu xamal ñu Amidou Diallo moom sax dem na bay tuumaal waa SUMI ak waa de la santé ci lu jëm ci ay loo looxoor ak i njaaxuma ak i njub njublang yoo xam ne toll na ci quatre milliards yéene kaay gi di laas ñu fekk fa Yankhoba Seydi bokk ci parti Rewmi bi Idrissa Seck yor lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum relation internationale moom nag dinay wax ne parti réew mi bu ñu waxee dëgg-dëgg mooy jamono ji ci ay jafe-jafe la nekk maanaam dafa daal di salfa ñoo puusul paasul demul ceng kul mbay lara ndax nag lan mooy nday parti réew mi toog lu toll si ñetti at yoo xamante ni defuñu réunion secrétariat national te loolee lépp nag Déthié Fall moo ko waral parti bi jamono ji dafay yappar yappar yi Yankhoba Seydi moo ni gisee ci yéen kaay gi las daal di dal ci kaw Déthié Fall nag nee na Déthié Fall ci boppam jamono ji nag boppam lay defal promotion ci biir parti biir réew mi moo ko waral sax mu daal di fay teg ak clan Barthélémy Dias ci biir journal bi de la Tribune la mu xamle nee na njiitu réew mi di président Macky Sall jamono ci li mu nekkee Sénégal yi ñoo ko ci bàyyee ginnaaw nag bi mu defee ay dëbbal dëbbalam mënut a fexe ba jot ci mairie bu Ndakaaru Macky Sall jamono ji li mu bëgg nag mooy maanaam di tabbu maire bu Ndakaaru par décret yéen a kaay gi di Sud mu ñu xamal lan ñi nga xamante ni ñooy nappkat yi mareyeur yi ñi yëngatu ci wàllum jën ginnaaw ñetti fan yi nga xamante ni bëggoon nañu ko amal ab grève benn rek la leen doole bu baax a baax a baax jën manqué loola journal bi mu ñu xamal ñu moo xam Dakar Mbour Ziguinchor ba Kaolack Diourbel la foo si dem amul jën yéen kaay gii di réew mi ko dajee xëy di ñu ko xamala mu ñu xamal ñu nag Aliou Ndoye mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum jën yi ministère bi yor wàllu woowu moom nag ni ki démb daan nay dalal mareyeur yi ba ak déggoo daal di am ci seen biir maanaam ñetti fani gerew yooyu nag daan nañuy bàyyi jamono ji gerew ba journal bi mu ñu xamal nañu en tout cas mareyeur yi ni ki démb rek wane nañ seen bopp yéen kaay gii di Les Échos dikkal ñu nag ci tribunalum Dakar ndakaaru ak musiba maba kumba gi nga xam ne ni ki démb daat nañ ko fay àtte benn jigéen boo xamante ni awa ndaw la tudd moom nag dafa jur doom ba pare daa di jël ak musóoram takk ko ci baat bi daa di koy xoj ba mu sedd guy mu daa di koy dugal ci ab sachet démb la ñu ko àtte lu toll si juróom-ñaari ati kasu soo mooy tuule danañu ko ko daa di tëj ba pare ànd ak liggéey boo xamante ni bu mu sëñu ta bañ la ni ki démb ate bi bi mu ko laajee naka ana lan moo tax doxalee nii la mu xamle mooy dañu maa njëkk ëmbal bii moo nekk ñaareelu ëmb bi moo tax ma daa di faat doom ji beneen bi xam nag ki nga xam ne moo ma ëmbal man ak moom bokkuñu diine yéenekaay gii di sunu laa mu ñu fekk fa Tapha Guèye la mu xam leen nee na Papa Sow ci boppam bu ñu waxante dëgg dafa daal saaga waa Fass ndax keroog bi nga xam ne ma ngi bëre ak Ama Baldé bi ma ñëwee ci port bi bëgg a dugg ci bunt bi ñi nga xam ne ñooy ay jegeñaale Modou Lo laa fekk te dañu maa bloqué écurie Fass nag moom du ñeexum ñebem kenn maanaam dangay man tegu ci bëgg-bëggu écurie bi mënoo ko rek nga fuula kan